abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV actuellement gannaaw ay kàddoom moom mii di président Ousmane Sonko mën nañ ne ci li nga xam ne rek mi ngi ko doon amal niki sànq te muy journée bu nga xam ne rek dañ koo jagleel maanaam lu spécial ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mu daal di dellu si waat gannaaw njàng ma nga xam ne rek ma ngi koy amal foofu foofule ca biir këram ak ay séance d'entraînement yoo xam ne rek daal di nay jot a defaraat li nga xam ne moom mooy aw yaramam booba ba tey moom mii nag mu nekk ci ab liggéey tey nag mu daal di fësal mbir yi ni mel donte la sax mu daal di dellusiwaat nag ne tëj bi dafa doy baax na d'une part wante kat am na si côté bu nga xam ne baaxu fii ndaxte booba ba tey mën nañoo jàpp que ne kat weer ak lu tekk mu nekk ci ab ruqam kenn xamula ci lan la nekk ndekete yoo booba mi ngi nekk ci lii nga xam ne rek moom mooy téere yi ak defaraat yaramam di continuer ay mbindam ak ay entraînement am ak li nga xam ne rek moom mooy liir ay livres yoo xam ne moom mii jàpp na ne bis bu si jógee dina gën a daal di yokk li nga xam ne rek moom mooy capacité am jàllee ci wàllu politique mu xam ne kàddu yi ni mel niki tey mu tombeeg la 15 di date d' anniversaire bi nga xam ne rek àdduna wërngal këpp ñoo ko daal di te mu waroon a tombeeg date bi nga xam ne rek ci lañ ko waroon a investir moom mii di président Ousmane Sonko.